dix mille francs yaa ngi nii yóbbu ko ci ci jàkk ji nga wax ko imam bi nga jox ko ñu def ko ci jàkk ji loolu la quoi donc euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup beaucoup marqué marqué na ma ci sama enfance marqué na ma ba léegi quoi c'était un papa exceptionnel il m'a donné la meilleure des éducations euh, m'a donné la meilleure des éducations c'est c'est extraordinaire j'ai jamais vu un père pareil bi ma nekkee xale di di jàng mhm. bëgg sport lool après daf ma dang wax ne ma sport bi du ànd ak li ma bëgg ci yow li ma bëgg soo jàngee boo wàccee nga ñëw ci kër gi nga jàng alxuraan donc ñun suñu kër euh, xamuñu woon mbedd mi quoi bu ñu jàngiwaan bu ñu ñëwee dañuy jàng alxuraan avec son maigre salaire de charpentier bu benn ustaas bàyyi mu jëlaat beneen ustaas donc euh, suñu amee grandes vacances du ñu dem vacances dañuy toog ci kër gi di jàng alxuraan donc euh, vraiment c'est c'est j'ai perdu un père c'est quelqu'un si j'ai perdu une très bonne référence c'est c'est pour moi c'est mon père est la meilleure des références ndax ragal yàllaam ndax bëgg njabootam ndax droiture am ndax euh, bëgg njaboot ndax bëgg mbokk euh, voilà il est parti de ça fait dix ans maintenant je le pleure encore son vide autour de lan mooy kàddu yu mujj yi ngeen waxtaan. dama daan def euh, bi mu feebaree man maa ko doon jox ndékki añ ak reer alors euh, chaque jour bu ma ñëwee di ko. jox ay médicaments am jox ko ndékki ak reer après euh, benn jour mu ne ma am na benn plat boo ma defaraloon quoi. Mhm. boo xam ne nen la woon ak meew. mu ne loolu di bëggoon naa nga defaral ma ko parce que dama ko bëgg. Mhm. alors euh, ma ne ko dinaa la ko defal temps yi benn jour ma ñëw di ko jox reer après mu bëgg wax ak man mais dama nag sentir que ne il perdait la voix. léegi ma ma woo sama yaay ma ne ko yaay kaay kaay nga xool sama papa lan la bëgg wax parce que moom lu ëpp ci temps da daan def ay askar maanaam da daan def ay zikr mm. donc du wax ak ñun mais day def ay day liyaar moo tax ma mën ma mën a wax ak sama xaritu muuma yi d'accord daan def ay zikr quoi di liyaar suñu bëggee dara wala ñu wax ak moom fekk muy zikr def ñu def après ma ne sama yaay kaay nga xool ko après bu sama yaay ñëwee di ko ne pas lan la après mu jéem a wax rek après mu mu daal di mu daal di tëdd donc euh, wax boobu mu daan wax te yeggul mooy wax bu mujj. moom la alors c'est c'est difficile c'est difficile mu nekkoon taalibe Cheikh nekk ku jub koo xamante ne jàngalu leen lenn lu dul li nga xamante ne moom mooy euh, alxuraan. ak jub xam nga il cent quatre vingt quatre maisons mais ñun suñu kër dafa nekk en face jàkk ji mhm. donc nu mu nekkee en face jàkk ji bu nu noddee rek day ne ay jàkk ji ñoo ñun dañuy traversé dugg ci jàkk ji bu nu julee ñu ñëwaat ci kër gi ba bi may am sald de sport ci kër gi j'ai eu des des amis yoo xam ne ba léegi dañ may woo dañu mais seen kër la ñu jàngee alxuraan seen kër lañu ñu tàmmee julli jàkk parce que bu ñu nekkee ci salle bi bu ñu noddee rek dañuy teg affaire yi ñu jàpp après ñu dem julli bu ñu jullee ñu ñëw nga loolu loolu noonu laa noonu laa màggee noonu la ma formaté noonu la ma forocé donc loolu moo tax euh, vraiment.